loolu. la maa ngi ñëw mais damaa bëgg repondir rebondir ci doyen. parce que doyen dafa am lu lu wax lu am importance te xañ ne saisiruloo ko. doyen lu mu wax saisir naa ko. non xam nga président Macky Sall président Macky Sall. président dafa am un discours profond te moom mooy li li doyen bi wax le président Macky veut conserver ah le noyau la base sociologique. sa base sociologique moom la bugg a jébbal moom la bugg a jébbal entièrement Amadou Ba dégg nga Amadou c'est à Amadou Ba lui maintenant lui maintenant d'imprimer sa marque autour de la base sociologique de li ko Macky di jé jébbal comme le PDS bu njëkk su demee élection lu mu ba bon day am 30 pour cent parce que c'est la base sociologique euh, et du parti soo seetoon tey base sociologique ñi nga xam ne ñoo ànd ak président Macky peut-être que eggul cinquante pour cent donc maintenant il revient au pré au, au, au nouveau le porte-drapeau de Benno d'imprimer sa marque d'aller puiser ailleurs et puis il l'a fait parce que soo gisee yéen journaliste yi yéen ak yaa ngi wax mais à un moment donné bi ñu doon wax kan mooy nekk candidat journaux yu bëri dañuy tiitrer Amadou Ba Amadou Ba Amadou Ba Amadou Ba Amadou Ba maintenant yàlla def mu nekk Amadou Ba gars yi jaaxle parce que dafa nañ ne président Macky feneen la koy tibbee ji. ñan ñoo jaaxle. ñi nga xam ne ñoo def Amadou Ba Amadou Ba Amadou Ba. ah mais na la ñuy jaaxle ñoom yow yow tu as dit tu as dit. non dafa nag non dafa nag parfois su lay déglu damay jaxasoo dañ doon tiitrer Amadou Ba Amadou Ba Ba. Macky Sall daf Amadou Ba candidat nga ni gaa yi jaaxle ndax ah, dañ doon yaakaar dañ doon yaakaar feneen kon lu taxoon ñu doon ñu doon wax léegi yow yaa wax léegi nga ne Amadou Ba rek léegi moom la ñuy génnee non non non waxuma loolu dama ni dañuy gis ni non non dama ni parce que am na xam nga non non lu déglu ma dama ni daf nañ ko premier ministre ñu naan anamu fan la nekk léegi depuis quelque temps gis nañ ni mhm. mu ngi génn di teg ay pas bay nekk ci uni journaux yi te loolu li ma wax sànq ma ni parce que aussi dañ koy comprendre c'est le candidat c'est le PM mais c'est le candidat moom mos a tëdd mos a nelaw laa wax Amadou Ba mais boo nee non Amadou Ba même avant ñu lan moo tax léegi nga ni journaux yi dañ doon xalaat mu génn feneen xam ni tax moom laa bëgg ñu Amadou Amadou Ba même avant ñu koy nommé mos a toog xëy ba ngoon jot deful activité politique yow te nee nga kenn déggu ko woon à un moment donné les journalistes ont choisi yaakaar ne suñ ko Amadou Ba Amadou Ba day indi dix division far président jël ko léegi nag jaaxle boobu ma lay wax nag mooy comme yow bi nga exprimer nga ne ba léegi ñu ngi wax Amadou Ba Amadou Ba Amadou donc tu tu tu laisses entendre qu'il y a une propagande actuellement autour de lui mais yéen a ko doon def loolu nag moom moo moo moo ñëw. moo ñëw si yéen. deuxièmement dans le cadre de la continuité continuité bi ngay wax. Euh, soo demee France dañ naan les gaullistes. non yow moom bëgg nga France moom. demal léegi soo demee France dañ naan les gaullistes soo demee dañ naan euh, euh, États-Unis dañ naan les républicains. soo demee soo demee au niveau du Brésil c'est pas ça tourne pas président Lula bi muy dem dafa choisir la dame la xaw ma dal mais daa xaw ma comment encore bi mu ko choisiree dafa génn mu ne kii mooy man ku ko woteel ku ma naroon a wateel woteel ko président et la présidente là après elle a gagné elle est devenue présidente Sénégal parce que du ñu suñu contexte parce que réalité yi du benn xam nga xam nga xam réalité yi du benn lu laa dem na lu laa dellu na xam nga doyen si da koy wax suñu erreur toujours mooy ñu ñu ñuy xool suñu bopp te du ñu comparé wu ak les autres. suñu tamit mooy ñuy comparé lu comparable. mais c'est parce que ñun on aspire à la démocratie donc dans les pays dignes de démocratie wala auxquels ñoo nekk ay références suñuy wax war nañu wax États-Unis war nañ wax ay France war nañ wax yenn bien que ñun am nañ suñu démocratie bopp. donc bu bu bu ñu seetee li nga xam ne moo ñu arrangé ñu koy wax.